dañoo bëggoon a dellu si rek comme ni ñu koy defee euh, maanaam song gi nga xam ne dañ koy song Ousmane Sonko oh, te teguñu ko fenn fu ju ci ay fen ak ay tappale ay sàcc yoo xam ne euh, ci yoon lislaam rey na leen ay sàcc yoo xam ne euh, bu leen dugalee kaso waratuñoo génn ay fenkat yoo xam ne seenu kàccu rëy na waaye yàlla dogal na boromam xel boromam xel ah, surtout muy ko am diine nit lay doon koo xam ne mbiru béton lay doon ba tax na ah, sàcc yi nga xam ne dañoo jóg songandoo Ousmane Sonko di wax mën a guddnoo jaaxal ñun ñëpp ñëpp ak ñëpp a bokk xam ne ab sàcc ab sàcc foog muy fen sàcc boo gis fenkat la boo mënta fen doo mën a sàcc moo tax la culture des malfaiteurs mooy le mensonge foog ñu fen Tahirou Sarr mi lim jël ëpp na sàcc la boo xam ne te gis ngeen ko bu leen kenn nax ab sàcc day ñeme alxuraan ab sàcc day ñeme ab sëriñ ab sàcc day ñeme jumaa ki ab sàcc yooyu lay làqatoo psychologiquement pour tromper askan wi sàcc boo gis bu nekk tey euh, yéwén ga muy yéwén jëme ko ci alquran wala mu jëme ko ci église wala mu jëme ko ci juma euh, yooyu yëpp ay buntu làqatukaay la noonu nag yàlla dogal nu xiif lu waay sàcc jox ñu lekk te nag ëllëg moom duy caaxaan dama bëgg ñu dem Ousmane Sonko ba noppi nag euh, ngeen xalaat dellusi xalaat te ànd ak dal ma di leen fàttali ne ab sàcc foog muy fen Mansour mi foog muy fen foog mu lu dëgg Bougazelli lu mu fi waxoon sàcc bu mag te kat ab sàcc bañul drog ab sàcc day ñeme juma ab sàcc day ñeme sëriñ ab sàcc day ñeme alxuraan fii la fi Aliou euh, Aliou Sall yëkkati kaamil alxuraan di ci waat ab sàcc ci boppam moo ñeme yu demee noonu ndax ay buntu mbubbukaay la kon lu boo ko dégluwaat Ousmane Sonko dégloo ko am xel te bañ ko dégloo ab xol Ousmane doxal. te loolu du ñu nangu ñu jël ñett ñeenti sénégalais sacrifier leen ba pare ñoom ñu toogaat parce que suñ doon def créé dëgg Macky Sall du ci mucc ma def ci ay ay ay ay articles yu ma bind en tant que secrétaire général honoraire du syndicat loolu dafa am solo de duggaguñu woon politique ñu dellu si. ma def ci ay émission bi ci gën a siiw mooy émission bi ma def ak Pape Alé Niang daal demoon démonter li ñu doon wax yépp pièce par pièce ñu toog ñu ko convoqué ma yi boobu man maa ne woon chef de la brigade immobilière o impôts et domaines ma ñëw enquêteurs yi jox ma benn fichier bu gudd a gudd ne ma li yépp ay société immo civile immobilière la dañu bëgg nga wax ñu yan ñoo ci ay société civile civile immobilière yoo xam ne waa ancien régime bi ñoo ko moom bañ ma ko joxee ma toog xool ne leen bii de société biir basi la tudd ma Sall moo ko moom te mosul fay lépp d'ailleurs envoyé naa ko avis de vérification bii de euh, euh, tel ministre moo ko moom xam naa ko ñu ne ma déet Sonko ñun laajuñu yow dañ la ne waa ancien régime bi wax ñu lan nga ci xam ci li ñu moom man leen déet da ngeen ma jox liste dama leen di wax li ma xam ñu ne ma entretien bi jeex na may leen ana PV ñu ne ma non doo signé PV dañ la woowoon rek comme ku war a am xam-xam ci mbiri comme yaay géré brigade immobilière mais jaratu boobu. yéen a ngi fàttaliku boobu la envoyé avis de vérification Macky Sall président de la république mu andi coow lu bëri impôt ci société civile am ma envoyé ko ko Mermoz gi mu dëkk ñu ne nekkatu fa mi ngi pare ma ne agent bi parler. ko nous mu andi woon coow bu dul jeex ñu convoqué ma ministère ne ma mënatoo nekk chef de la brigade immobilière parce que tu as ce que tu as fait c'est une faute lourde ma ne leen Macky Sall citoyen sénégalais vous bu une société dañ ko war vérifié, vérifier ni vérifier beneen société bu dul moom. kon du ma fi jóge ci brigade immobilière ci ci cadre boobu boobu man maa nekkoon secrétaire général du syndicat des impôts ñu am bant bu gudd buñ may laale ci jamono jooju la Mansour Faye sàkku sarafu sukk jonkan yónni Cheikh Issa Sall ne ko dimbali ma rek nga wool ma Ousmane Sonko il faut ñu toog ñu waxtaan waat naa te ñi ku ma xam-xam ne ni du ma waatal dox ndax xam naa lan mooy valeur waat lii mbokk yi mooy mbir mi waaw ginnaaw ban bokke déglu Ousmane Sonko lépp ngi noon leer nañ Ousmane léppam alxuraan la Ousmane dafa judd ñu yóbbu ko daara mu teel a mokkal alxuraan bind ko beqi ko di imaam yi juma ñu yor ko ci yar boo xam ne eh, ku ko ne jàkk da koy ragal ndax li nga di ko ragal nitu diini la li nga di ko ragal alxuraan ci ci moom lu tax nga di ko ragal dëggu ci moom lu tax nga di ko ragal bëggi bëgg réew mi waaye sàcc yi moom sàcc yi dama foog nu jóg ci ñoom sàcc aaday sàcc aaday sàcc sàcc seen langage seen langage mooy la mani ab sàcc foog muy fen sàcc boo gis day fen feni Bougainville di gis ngeen ko ab sàcc day ñeme alxuraan ab sàcc ñeme naa wat ci alxuraan ab sàcc day ñeme ab sëriñ jege ab sëriñ ab sàcc day bëgg na ci ay jumaa di taxawaalu ab sàcc yooyu moo ay roxam surtout mu sàcc boo xam ne lislaam day wuyoo kooku fokk muy fanaan ci bunti jàkka yi ak di sarxeeka taxawak lu ne mu ca dugg nu nag noo war a li ñuy lekk lu mu doon ten bokk ànd ak Ousmane Sonko jóg ci sàcc yi sàcc jóg ci ñoom dafa jot tant que defu leen ko tant que defu ko sukkandiku ci charia ren di sàcc yépp ci toroxtaangi la réew mi jëm